waa njaaram yëpp nag di kontaan tam ci bis bi nga xam ne nii moom lañ ma parrainé muy sama drapeau ah te xam ne njaaram gépp tey ñoo mobilisé wu wan ne ànd nañoo man tey pour jàppale ma. waaw waaw drapeau bi nag dama koy tëggal président la république moom laa si jàppale pour wane ne ko ne ko man am naa mbooloo moo xam ne mën nañ ko falaat deux mille dix neuf mbooloo mi nag ñëpp tey mobilisé wu nekk sama gannaaw ah mën nañu compter nag mën na compter ci man pour loolu ndax mbooloo mi ñoo ma jox bopp jox ma loxo jox ma lépp. njaaram nag moo a ñor moom ma intéressé dama wax ne tant que maa ngi dese benn souffle danaa xeex pour njaaram danaa xeex pour njaaram jàppale jeunesse bi danaa xeex pour njaaram jàppale jigéen ñi surtout yàlla jàppale leen pour ñu mën am ay financement ndax jigéen njaaram dañu am jom mais amuñu leen jàppale ci wàllu financement pour ñu liggéey donc sama combat bi yëpp ça tour de ça comment faire de sorte que les femmes soient vraiment financé et que les jeunes aussi puissent bénéficier